saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Max Mbergane ma wone fa mu féete ci xeex bay dox ca diggante arbitre ya ak CNG xiiroo baak ngaayoo bay dox ca diggante CNG ak arbitre ya saa yu kàngamu làmb génnee wone féeteem Max Mbergane foo féete mu ne làmb laa àndal làmb laay jàppale làmb laay défendre bañ naa ko ba ku jàpp làmb ma jàpp la ku bàyyi làmb ma bàyyi la waaye CNG dogal bii ñu jël ci arbitre yi man Max Mbergane ànduma ci tey ànduma ci ëllëg commission centrale des arbitres yàgg nañoo jàppale làmb yàgg nañoo suqali làmb ñoom arbitre yi dañoo am seeni droit ak coow li amee la ñu bëri xam ne CNG benn représentant képp la fa arbitre yi am moo waral ma ne dàq gii ñu leen dàq du dëgg du yoon waaye ñoom it yi la def teguñu ko fenn ñoom waroon nañoo waxtaan bañ a dem rawatina semaine bi ñu ko defee nga xam ne promoteur yëpp jàppoon nañ seen date bay waaj bëreel nga xam ne promoteur yëpp fekk nañu pare seen journée ba noppi journée promoteur yooyee mënoon na faa jaar yàqu ba faaw waaye nag loolee taxul VIP yénn mbëri moodu moodu ji na ñiy tekki seen i ngemm mënatuñoo am combat promoteur yi nekk ci ay difficulté mënatuñoo tëgg ay journée yu bari ñuy am grand combat yoo xam ne mbëri koy bëree sax matuñu 100 kilos problème yooyee lamb ji nekk rek dafa doy sëkk ba nu ko laajee ci Gaston Mbengue dafa xam le ne wax na ma ni danaa wax moo doon dox combat yi ne ma noppil bul ko wax kenn waaye comme waxal na boppam ne moo doon dox diggante Bombardier ak Eumeu beneen combat bu neex mu ngi woon ci plan rëg-rëg ak Malick Niang mu ngi ko doon dox te bëggoon na ko kon fii lamb ji toll nii dafa soxla ñu mel ni Gaston dafa soxla Gaston moom Gaston homme de défilé te mën naa sauver lamb ji ka war a sauver mooy Siteu le Tarkinda Lansar gënu xamoon ci écurie bu mag écurie bu jommal gaa yi jamono ji ràññeetu nu xar kanamam at yi ñu génn Lansar bokkoon na ci écurie bi jël premier ci mbooleem écurie yi nekk ci Sénégal mu amoon ay mbër yu am jom yu am fit a bëre goney Max ni la baleine de Lansar ñu gën koo xam ci nees le professeur de Lansar la machine à gagner bëgg la tigre ak Aline Diop de gone yooyee bokkoon ci jaaxal seeni morom jeexal seeni maas gone yooyu bi ñuy toll ci seeni diggi ndënd kuñ ne lansaar ngay bëreel dootoo nelaw waaye ba mbir ma tourné tolof-tolof dafa dugg Tidiane Faye fëgala ak nes kenn xàmmeetu leen ñenn ñi dañoo aligné ay defet mënatunoo am combat Super Étoile Sentel ak Baye Ndiaye mënatunoo am combat loolee moo waral Sentel Baye Ndiaye ak Matar Gueye moodu moodu ji tigre rek nekoré a sànni di mu jékki gëtam journal ba xam le ne Siteu mi daal ci mbër mu mag moom la lan saa dese ci yaakaar bu dee Auguste bu Mbour moom réer na ne mër fàtte nañu ko kenn gisatu ko depuis 2014 la gëj am combat ci bi mu ngi ci sixième saison balance la gëj am victoire ci diggante mag Mbagnick Ndiaye bu Ndakaaru ba mu jógee ca victoire boobee nag dafa tegale ay defet ñetti defet ya mu tegale assurance moo ko daan Bismi Ndoye ak Giri 2 ba léegi Auguste kenn déedéet ñun promoteurs yi duñu nangu mënuy diriger Tyson ba mu bàyyee lamb léegi yàggul te mën naa favoriser ay mbëru goxam man ki ma jàpp ne mooy remplacer Aline ab promoteur la promoteur boo xam ne mu ngi ci milieu bi rek ko jox CNG bi mu doxal ko fa nuy jeexale mooy couvre-feu bi président Macky ci biir réew mi li ko dalee 20 ba 6 heures du démb la guddi gu njëkk ci couvre-feu waaye def na ay njombe am na ca mbër da